fiesta. yemena hm? nu ñoo dund yemena ku nekk melam benn pipp ñit anga seen nangu fukki bàmme ñit téere ci xandoor ci lànk ci xam ngeen ne loolu jaaduwut ndee gaa ngi festeb saafara bee di tuuru ñee yaa ngi lekk riba ba biiri ngandele ñee yaa ngi lekk bee di tuure ñee bu ñu añee du ñu réere ñee yaa ngi jooy ñee yaa ngi re asaka yaa ngi koñe suñu aleel yaa ngi koñe at gi lu ñuy dund métti na si woog sent gi business sent gi trafic sent gi dundu sent gi man sa musta dégg loolu laa samay bët ci at gi um um foog naa big fa big fa ah, fa fetelal mane bo barame whatsapp nane bu mangange nane tati tiri people ne tedri nate chila yengu sajune mind bangi sang bono yala chila yengu bro bro Fiesta.